wallaay doo ko def weeru bu ñëpp mu ne la bu ñam dugg sa gémmiñ xalaat booy génn nag naa kii day waa rek rek bu la ne bu takk soxna du la tee takk soxna mu ne bu lekk du la tee lekk mu ne la bul la tee naan mu ne la mu guddi gi yëpp nga def ay doom naan nelawoo guddi gi day nelawoo gannaaw suba nelawoo ah mu la mu la dégg ba ne mu suba fii tew mooy nelaw doo ko

parce que mënu ko waaye fu ne nag nga xam ne demaguñ moom yow nga ne yàgg yàggaaral nag léegi jaamu yàlla zéro teg la lu la neex def lépp lu sa bakkan soxla rek loo xam ne bakkan bi bëgg na ko lu mu xar du nag daa amul xel wane dina gaa yi ne kada boo weddi bi aayaat naa ci alquran na weddi wala liqaa ilaaxira ni nga war a dajeeg yàlla dañuy dañ lay weddi la gëmloo a leneen nga nekk ca nag ndeysaan ba dee nga perte xam nga mag bu ne ahmaadu mu seen jëf ndeysaan alquran ay wax mu ne waaji nag bu xamee ni mu ci bànnee xam ba ma lépp am ba ba dee ñëw nag ñu ne ko kaay dem bar rek mu ne jàkk nag te nag nit bëgg a dee malaaka bi ne dareet te heure bi jotagul day def jàkk di ko xool duutu xool kenn moom rek lay xool li nga tànk ba nga njëkk a ba tànk bi nga mujj séq loo fi def rek mu jaar ci mu jaar ci écran bi nga def ko xool dina àgg foo ne nga xam ne nag léegi nag sa mbir yëpp yàqu nga ne pourtant man de ci àdduna bu ma seetee li suñu borom daan digle li li suñu borom bindee àdduna bindewul ko àdduna noonoo dox ba léegi waaye nax nañ ma habitat màpp na amaat mu seen suñu borom ne waaw jëm nga yàpp na yal nañu ci yàlla mos a jëf ji yàqu walaay amatul na tuuti tey nag Aliou bi soo def leen buñ leen fay illaa maakaan lu lu la ngeen nekkoon yaa amal nañ ko def ah daañu leen fay de waaye li ngeen naan def donc dañ leen di fay bàyyi na loolu wax dëgg yàlla jàpp na xaw mi Moussa dem